Bye. وغدا لمن yom thavadi yadam yadagi yadam yadagi yadam yadagi من كثير وادي يدم في يدم في مع

عقبه البنين كان في الكتاب في الكتاب من ربخني ربخني ربخني ربخني بخيلا بخيلا بخيلا مصنبغني مغرما ما تخطى فوزا ونيس وعزاب وعزاب من شرعا إلى سوى إلى سوى هاء الموت مآبه سبحان الله مفوت لقبني لقد ما فخرت قد رفعت في المحط في سرقتي سرقتي والذين كبدني بدر من موت نفسي منا نفسي جدل نفسي جدل شيئا عمرا يا ممالاتي من نسمات اللهم اني بك إلي البيت الرافيق الرافيق بالغربية نصرت في قصد بالنبي به وبالكتاب ومن ملك الملك الأمين حجاب ما حجاب ما حجاب حجاب خدمة المناجاة بقرعة بقرعة قد جعل الله تبارك وتعالى وتعالى ذنبهم ذنبهم وينلهم يبلغهم ساكن وفاكن يا رب لهم أغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قلنا قنوتي قنوتي سبحان ربك سبحان ربك قل جنس يوم يجفون يجفون سلام سلام للمرسلين المرسلين الحمد لله رب العالمين العالمين التربية والكتب بلا بلا لك شكري بجنة بجنة لك كل يا فبها فبغائي آية منك سرمدا سليماني أبلي يا دار يا حبيبي عليه أغلماني مدني من مدى ما أزاد في دوامي وبخاف بالبلاد منك أبقي لابد سلامي وشيء لما الانقلاب بجلادي دائم كالنبي يوم من قيامي وتبارك والملك والهدى وجمالي مالك الملك ذا وكمالي لالف بالسكون وسكون وسكون وبه متصل له بالالام ليسق على تدور لثاب وبخاف يسوق كل ودلال والخلاء بوجودي أجنا بك وأنجنا بليالي أصحب دور رحمتك أجنا بي وجنا بالليالي ذا الذي ملتزم بسروتي وكفى كل اذى في الثياب وإلى إلا what you can think, what you can think, what you can think. Cause I lie, cause I lie, I remember. Pick it up, pick it up, pick it up. What you lie, if you can hear me, I mean, what you can think, what you can think. Cause I lie, cause I lie, remember. Pick it up, pick it up, pick it up. What you lie, if you can hear me.

Magna Mirage الجن والملك يا مبشرا ربي أسيت جنة شك يرى بأم أدا من هجرا من سن أنه هم سيرا نسير أحمد فاتغيرا Allahumma salli waje xarit waje bu mu ñoom bu ko ban borom bu doon junaan bu mën a doon am la place ni raar sëriñ Bassirou Seck bu borom jaar

لن يمنى لن الأنبياء مصطفى يتبع جلالا جلال الله لن يمنى سنة محمد مصطفى وتقفي تقفي ونقل محمد ونقل محمد

Mustafa, bin Hari

sẽ ăn mà thuốc đông bằng ngọc thiên lý thà bằng thầu thầu thà bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wait, người na là kỳ dân lên nhưng mà từ những tay nhìn chờ ba ba đặt người na lên thì là chờ một đám ta bằng mặt người na là trên là thiên bê có bờ liền bê có bê là vì do mà là một vô sự mê vơ mi bê đã khơi sinh mê ya

فأيما واجتما فمن أبدا لئن ترك كما لم أبا تنتظر فأيما واجتما وبدي كما أنا أدنى ومن زعلوا

لي بفضلك يا الله يا مالك ولديك فمن أنعم إنسان ولا وهب إن المفيد وكيف لمن يوى فبعد العمل بفضلك يا أبي يا مالك ولديك كمن أنعم إنسان ولا وأنا رب يا ملك كل لديك تواب وسواد ربك كل آت فرقا برهان كل فرح ضمن وأهلال أدنيا

كل قوت لكم وظلم وأسرار ذاك الملاذ يزال النجاة نجاة في الدنيا يار قام ورانا لو كل من ونفد والنظر لا يضل عمل ورانا لفا دم دم

فمكن درسهم إلى إقرار ورانا يفتح من كل ما حديثنا عمره ومدهم ومدهم ومدهم Bye.

Thank you.

هداني ثم بغير لا يغالب بني بني بني في قرار سعد ربي مختار ثم بغير لا تروم الجنة به خليل سعدنا زيادنا زيادنا وطاني ثم بغي ثم لا يواجهني بالمجد مكانا سعدنا زيادنا زيادنا وطاني ثم بغي لا يقانعني بالقتل قتالا سأنطلق فينطلق مدار ثم بدي ثم بدي ثم أنت تفي أنفقان أنفقان دنيا أغيال أغيال هدو ربي على المدار ثم بدي أنت تفي أنفقان أنفقان دنيا أغيال

ما لم يكن وديا Dalam tulang jengata jengata jengata jengata Pemerintah Alal amin bina amin bina amin bina amin Ilahi sayyidina Dalam duka fukuran fukuran fukuran ملك لكم Bismillah. vâng trăng thân linh là đường lên gia gia gia gia gia gia cùng hay là hay là Alay Azalan Azalan Azalan Imam Imam Irani Purun Purun Purun Purun Purun Purun Purun Sangga sangga kedua Jaga di kurni Ribuan dakwa Diwan samawati Allah sangga kedua Jaga di kurni Ribuan dakwa على زمان بدوى حتى لكل ما رضوان الله على أرضي وسماوات ملك الملك لست لجميع لكم ثم ترى من هذا الخلق كلهم خير خلق الله خلق المرء محمد خير خلق الله قلبي أحمد نتيجة العمل قلب العمل ولد خلق أنا الدنيا أو في الأول ولد أمين لا أمن ذي المنظر في ظلم أتألم أمبارك I'm Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

أنا وصولي والمدى المدني بالمكيال أنا وصولي والمدى بالمكيال أنا وصولي والمدى أقول جلي يوم فلا يفعل لكن أنا بجزاء القلوب فلا أنا بجزاء القلوب ولا

عجب في الدنيا ومن المنى ومن الخلق عجب أبدوك مغتافرا ولا أسافر أستغفر الله جل لا رازق أستغفر الله جل لا رازق أستغفر الله جل لا رازق أستغفر الله جل لا رازق

I'm آخرنا فكلكم فليأخذ أخذكم ببعضهم علقة فكنا اللهم نائزنا أستغفر الله جل الله نائزنا اللهم أستعين على جل الله مستعين من أخلاق والمجد جمع يولد يا قلبي يومي مودا أجمل أخلاقي والمؤمن أتكلم إلا الله إلا الله أتكلم إلا الله إلا الله أتكلم إلا الله Allahumma أبدا أتمفعهما وقد أفن مدى أتعفت أتغفر الله وقد أفن مدى أتفت مما سكرت من الأجناس والأنفسات بما سكرت من الأجناس والأنفسات مما سكرت من الأجناس والأنفسات بما سكرت من الأجناس والأنفسات أتعقب الدنيا Hatta Ila ila يا ربي مزاياك يا لدى الكل خجلا لكن خجلا لا خلق منه عليه سلام مخل أمرك الوقت محمد المهروف ما إن ومانع وبالي شموس مصوني أزل وزن مجيب مجاب كدر ملك مبيع ومبوس من القرب والوطن يلاخنا بيانا مؤلم منيخ ومبوس من الناس والوقت مدينة يمنون فجاء منة لنا جيء ومد من جنب ومن ظلم ما لم علم النبي كل فاسد وتب بأبدا خديما بلا خمد بلا خلائه ربها شعب صلاته بتسليمه للمطوى من اليمن ينبري الدلال jërëjëf sëñ Aliou jërëjëf sëñ Aliou maa ngi koy dund maa ngi koy dund yàq ma jàng yéen góor ñi ak yéen ñaar yem ci sëñ Touba dañ kaa bëgg rek comme ni ngeen ko bëggee comme ni ngeen ko bëggee barkeb sëñ Touba te ñun alal sëñ Touba la bisimilah sëñ Aliou na ñëw te bari ay dér na aku xeexeem ku koy wàcc na doo ko def

رزقنا والفقراء من الأغيار وأبغي خدا ورد جنبا سليمة رزقنا رزقنا بام أمر ماس جنوركم كما أمر فاس Bye.

fal fal fal mbati góoni fal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah

وبسير كلنا بلا سبيل لكم كدا ويا غريب ويا مجيب يا مجيب لسمني خير العجيب عقلي وليد نسينا كان حب يا قلبي لبيدنا تخون إياك نعبد ونستعين فإنك المولود والمعين دلتنا يا مدين يدون كل النخيل يا تطيرات مدني من أملنا مدني يبيدنا من خلنا نحن دفع نور على نور نحن دفع سعادة نارين نحن دفع نور على نورين نحن دفع سعادة نارين قد فالنور على المريم نمد فالسادة درين نمد فالنور على درين نمد فالسادة درين ربنا أخرجنا وكلنا من آية وأبلنا وأبلنا أصحابه آمين آمين وصلي على النبي وسلم وقد به حاجة كل مصاب آمين آمين فضلا وهاب يا رساق يا مالك لفت حبل وصاحب كلانا وقد اللواج الذي ندام كقدمة أبل المال يسر له بي الذي تنصر فكل من يسر له أنت يا سلام يعني هذا قرم لب تقول لك لم قرم تبقى كيف سنتوبا دنيان لكي بيان سنبرم قرم تقول لك لم قرم تجلل كي كيف كبه يولمي سنبرم يأكل في كيف كيف yàggal ko fi jàmm ak tiraanga ak jàmm yàlla ko ci borom nangu ak ñëpp nag seen bajiri bi seen yëpp bàyyi nu kenn di ziar bu baax sëriñ bi te di ko nuyu di xamal ne mbooloo mi wër ñi amuñ seen fay fuñ leen soxla buñ leen woy ñu bàyyi seen yitte yi ñoom ñii ñëpp kenn ku ne da nga yor liggéey jàppe wuñ ma daal sëñ Tuubaa rek lañ ma jàppee ñoom ñëpp nag sëriñ bi am nañ micc bëgg nañ nga ñaanal leen yàlla boo ko ñaanee rek mu am te ñaanal ñun ñii ngërmande yàlla daal mooy ñu ñaaw ak fuñ ñëpp yaa nañ ko am ci barke bis bii sëriñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax yàgg say bokk yëpp ziar bu baax sering jangan liu di ko ñaanal suñu borom si waaw jàngoro ñi te si waaw ko wér te def ko mu yëkk di ñaan ku fa ku ronu bi yàlla bul na boodi bi si Ahmadul Xadim yàlla na ko dund limu lépp suñu borom gërëm ko dañu ada koog yow ci barke di siyaare sa njabootu bopp gi buñ desanya Ali ak Bas mu moom la signalé yaa doon kaddu gu ci moom muy diggante ak ñun day yóbbaale ñu di des ñëpp mekko la ñun téye jàng rek lañ ci man moo tax kaddu yi lu ci lott rek ñu ngi koy tuub na nga xam ne daal ñu bëgg sa njaboot la sëñ Bachir ba moo wooyee dama na ko ni ngeen ko bëggee rek ñu ñëwee noonu kuy sama alaaji moo raw sekk kuy sama alaaji yaasin ku la soxla si Ahmadou Bamba loolu amul wax ndax alaaj moo rawat dégg naa ne wax na ne bu fi fekkoon njabootu si naaj bu fekkoon góor te fekk fi jigéen sax doy na ko sëriñ kon ñun ñuy rootee foofa kon ñun taalibe bi rek lañ bëgg doon di ñaan nag yàlla nañ ci faatu barke Sëñ Tuubaa waaw taalibe rek lañ bëgg doon yàlla nañ ci faatu sëñ Basiiru kàddu yi lu ci yàqu dimbale ñu ngir yàlla nga yeggal ñu ko sëriñ ngërmandal yàlla daal lañ bëgg liggéey bi dañ cee dem fu ne moroom nag da ci laaj lu ne ndax ñu koy def da ci laaj nañu def ba imposé xam nañ ko waaye mosu ñee jàngale kenn na ko jox ni ñaari dërëm man tax mbooloo aw ma seen fay mosu ñu am problème bi xaalis dañu ànd ak ñi sëñ Tuubaa kon nag sëriñ bi bu ma ñëwee ba fii ci bërëb bi dinaa la dénk mbooloo mi nga ñaanal leen ndax loolu naa ci lool fu mu mën a yegg ñooma ñoom ah, ñi kon nag bu ma ñëwee ci bërëb bi te xam ko bu baax sa dëkku ak sa naq ngër bànde kon dénk la bopp nga xam ne daal ñoo ngi lay bàyyi xel biir ak ci biti daa am lu nga xamante du waxu bolo waaye am nañ xam ci yow sekkaar yi ñu ngi lay ñaanal nag bu gudd woon lool te ànd koog taalibe yi jàpp ci liggéey bi ñëpp lañ xam dañ xam ne buñ tuddoon par tur mën naa yàgg te ñun ñii buñ bàyyi ko fi ñu ngi dem buuru tey ñii jàng sëñ Maam Mor Sogi la kon dañuy jàng ñaan bu dafa dem Touba dama ñu yóbbaale ba Kaolack mag sëñ Mor mii ndax démb buur lañ béyee ko tey jii dañ ko am programme loolu moo tax man sëñ Basiru ñu ngi tuuti kàddu yi ci njàng mu nga xam ne ci ndigal ñoo ko daggal seen bopp yaay ñu ngi tudd baax a baax xam na loolu rek la wasalaamaaleykum wa rahmatulah